représentant parrain bi monsieur Amadou Sy représentant du coordonnateur national du PUMA moom mi nga xam ne mooy parrainé bés bi ak madame Aïta Gueye nga xam ne moo ñëwal la commission le le bureau CEDEAO du ministre de la direction de l' intégration ak suñu euh, partenaire bi euh, Bassirou Sy Bettenty donc euh, ñuy wax ne ñu ngi sant yàlla pour démarrer liggéey bi mooy marche bi nga xam ne dañ koy def ak xale yi pour annoncer forum bi ñu war a def suba incha allah suba si 10 heures. si case communautaire bi nekk fële buntu poste de santé. donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant bon man maay Bassirou Sy président du mouvement pour la citoyenneté africaine dañuy ñëwaat rek lu waral marche bi marche bi lu ko waral on organise un forum forum des territoires frontaliers paix et sécurité en Afrique le thème la jeunesse face au terrorisme. gis ne organiser une marche tamit c'est très important pour wane ne population bi nu sommes en phase et nous adhérons à la politique de son excellence monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal son combat pour la lutte contre le terrorisme, son combat pour la paix et la sécurité en Afrique. D'ailleurs, il apparaît aujourd'hui comme le leader incontesté et incontestable donc, de la lutte donc, contre ce nouvel ordre mondial qu'est le terrorisme. loolu moom mooy objectif euh, véritablement marché bi sens bi mooy woote jàmm ndax il ne saurait y avoir de développement, de l'émergence, sans la paix qui est la condition sine qua non. Et de ce point de vue-là, moo tax ñuy marché pour woote jàmm parce que développement mënut a am te jàmm am loolu moom moo tax ñu tànn Karang ñu ñëw ci dans les frontières invité la Gambie et de ce point de vue tamit ñu ngi remercier le directeur de l'intégration qui est le coordinateur de la, de la Commission nationale de la CEDEAO, représentée par euh, Sohna Aïta. Mais nous remercions encore, de féliciter encore, une fois de plus, M. Moussa Sow, coordonnateur du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. ndax nag moom dañ ko war a delloo njukkal ndax bu ngeen fàttalikoo daaw la journée de de libre circulation dafa def lu am solo mooy nous sommes les populations elles sont vulnérables mu profité ci journée boobu indi ñaari ambulance médicalisée de première de dernière génération bien équipée donc loolu surtout mooy expliquer lu tax ñu tànn ko mu nekk le parrain donc de ce premier forum te vraiment ñu ngi ciy remercier encore monsieur le maire parce que wax dëgg yàlla ak yenente bi boobu ba léegi c'est lui qui porté le projet ensuite ñu ngi remercier le sous-préfet parce que sous-préfet ci boppam moo ne moo ñu boole ak monsieur le maire pour nous mener réaliser donc En même temps, de remercier également le gouverneur qui nous a reçus dans ce sens, qui nous a encouragés, qui nous a écrit et qui se fera représenter également par le préfet de, de, de Et ci tamit ñu ngi remercier monsieur le maire parce que dëgg yàlla ak yenente bi bu lëg ana lekkee euh, alom salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñi fi teew euh, di remercier organisateurs yi ci euh, invitation bi ñu ci invité effectivement comme damay daanee sànq ci li nga wax peut-être activité bi dafa bokk ci recommandation yi jóge woon ci déclaration bi de Caracas bi ñu fi defoon ci dans le cadre de la journée de la liberté de la et eh, ñu ngi leen siy gën a continuer parce que la liberté de circulation lu soxal ñëpp lu ñu soxal la je pense que loolu bu amee rek intégration effective et di remercier ñëpp di remercier waa Puma aussi fi teew ñun ñëpp ñoo bokk liggéey bi et di leen sant di leen merci beaucoup au nom directeur de l' monsieur Jean-Antoine man maa ko fi nekk merci. merci beaucoup monsieur le maire monsieur le, président donc à titre liminaire je voudrais coordinateur national est en activité que nous réunissons commence aujourd'hui par la marche et demain également, on aura le, le forum. que c'est activité d'une importance capitale voudrais donc effet au nom coordinateur m'en réjouir parce qu'aujourd'hui on regroupe des enfants pour parler de la paix, de la sécurité. Au-delà de la quiétude, au-delà de la tranquillité que la paix donc pourra, du moins apporter, mais aujourd'hui avec ces enfants on est en train donc de s'aimer donc l'avenir, ce qui va constituer l'avenir de demain. Aujourd'hui, pour qu'il y ait la paix, il faut également qu'il y ait une autonomie des populations. Et je pense voilà pourquoi le président de la République, au lieu de se focaliser sur le volet de la sécurité, a mis en place ce qu'on appelle le programme d'urgence de modernisation des assets territoires frontaliers. Ce programme axé autour de trois axes. Le désenclavement pour permettre la mobilité des personnes vivant dans les zones frontalières qui étaient pendant longtemps laissées la sécurité également donc de, de frontières, le développement durable, parce qu'en fait, s'ils n'ont pas, <coughs> s'ils la paix, ils sont, s'ils sont également, s'ils ne sont pas enclavés, s'il n'y pas le développement durable, donc cette paix ne saurait être durable. D'ailleurs, la mise disposition de la commune de Karang d'une ambulance. La commune de Kersamba, une ambulance également médicalisée haut de gamme. Aujourd'hui, vous avez vu, on a électrifié l'axe principal de Cran pour permettre vraiment que, à cette population de retrouver donc le souverain. La marche qui ouvre les activités du mouvement pour la citoyenneté africaine. Ce mouvement qui a pour objectif de participer à l'édification de l'Union africaine, d'unir les jeunes africains animés de cet idéal, consistant à créer entre eux des liens d'entente et de solidarité, de contribuer à l'émancipation sociale et à la formation civique des populations afin de créer une nouvelle dynamique d'esprit de développement, surtout chez les jeunes, nous c'est connu. les jeunes de la jeunesse aujourd'hui taxaw monsieur le euh, président de la république Macky Sall ànd ak teg naataangoom boobu son excellence monsieur Adama Barrow waxuñu nañ dem Ndakaaru de déedéet waxuñu nañ dem Banjul de déedéet waxuñu nañ dem centre international Abdou Diouf de déedéet daane ah nañ leen def kaar waay lii de qui a pu tout le monde d'avoir voulu assister à cette rencontre. Euh, Il y a aussi l'initiateur de cette rencontre qui en fait partie, le mouvement euh, pour la citoyenneté africaine, donc dirigé par M. Bassir Donc lui aussi, on va lui donner la parole. Comme ça, il va aussi vous souhaiter la bienvenue et m'adresse ici les premiers mots de la rencontre. c'est-à-dire dafay jot benn xale wala benn waaye boo xam ne da ngay sol bomb mu ñëw dugg si biir bi mu toog à distance explosé courage présent wu. merci merci. ah monsieur le noor bi mën na ñëw si ginnaaw.